محمد نبي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 allahumma la sahla illa ma jacaltahu sahla wa anta tajcalu alxadana ida chita sahla allahumma axrusna bicaynika allati la tanaam waxfadna biruknika alladi la yuraam warxamna biqudratika calayna wala tuhlikna wa anta arrajaa a delsiwaat nañ ci muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam darsi bi ñu génnee noo ngi bàyyi ko woon ci masra asadullah hamza ibn abdul muttalib muy daanuk hamza waaye gisoon nañ ci darsi bi kemaan yu bari waaye gis nañ it nag njàmbaar goo xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ko ak it njuumteg jullit ñi ci ndigal bu ñu leen joxoon ñu xët ndigal li ngir poñetam àdduna yàlla di leen ci corriger di leen jox ay leçons ndax yonent bi waxam kenn waru ko bàyyi mu dellu ginnaaw ndax lu mu wax yàlla ko ko wax foofu gis nañ ni yéefar yi mujj nañoo wiiri ci njiitalal Xaalid ibnu Walid yëf yi daal mujj naa soppiku ba jullit ñu bari daw daanaka la fa desoon ci wetu yonent bi juróom-ñeenti nit la foofu nag keemaan yu bari am na fa ndax thabit ibnu dahdah foofu la woowe aw nitam ne leen yaa machara al ansaar in kaana muhammadun qad qutil fa inna allaha xayun laa yamuut muy benn ndaw ci ndawu ansaar di benn jàmbaar ci jàmbaaru jullit ñi ndax bi gaa yi siiwalee ni rey nañ yonent bi ñu bari danoo découragé daw bëgg a jeexal xare bi kenn ci ndaw ñi foofu la yuuxoo ne leen eey yéen waa ansaar su fekkee ne muhammad rey nañ ko it xam leen ni yàlla moom deewul te diina ji du diinay muhammad diinay yàlla la yàlla du dee kon nag qaatilu ala diinikum allahu akbar ndaw moo wax loolu de ndaw ab jeune moo wax loolu bu doon mag nga ne dundam day waaj a jeex waaye xale bu góor bu amul 30 ans moo yuuxu di woo jullit ñi ne leen yaa maachar al ansaar in kaana muhammadun qad qutil fa inna allah xayun laa yamuut qaatilu ala diinikum fa inna allah mudfirakum wa naasirakum xeex leen seen diine yàlla dana leen dimbale dangeen gañe kon jullit ñi bokk na ci kàddu googu xaw na leen a delloosi benn mbooloo ci lañu ñu nag ngir nag jëm ci Xaalid ndax bu ñu fexewul Xaalid ibnu Walid wàcc mooy pour ñu gañe dana dafe ndax ñee ci kaw lañu tollu di sànni seeni fet benn waay ci waa muhajirun dafa romb ci benn jeune ci jeune ansaar yi deret baa ngi xababa bi di sottiku mu ne ko yaa fulaan ashaarta anna muhammadan qad qutil mu fekk waa ji nga xam ne ansaar yi la deret jaa ngi tuuru mu ne ko diw ndax yëg nga ni muhammad rey nañ ko xoolali ko ansaar yi bi tontu ne ko in kaana muhammadun qad qutil faqad ballaga allahu akbar kooku deret a ngi nàcc ci yaram bi ba mënatul dox xarit bi daw ñëw ne ko yëg nga ni muhammad rey nañ ko mu ne ko muhammad buñ ko reyee it mottali na mission faqad ballaga li ko yàlla waxoon jottali na ko te jot nañ ko kon ñun ñooy taxaw pour défendre loolu ballaga risaala wa addal amaana mottali na risaala bi mottali na kóllëre bi kon deewug muhammad nekkatul dara dara ci diine ji lu koy wàññeeti kon in kaana muhammadun qad qutil faqad ballag kon fa qaatilu an diinikum xeex leen pour seen diine xeex leen ngir seen diine mbokk yi foofu nag la jullit ñu bari commencé di jotaat seen xel nag war delluwaat ginnaaw dajaloo nag def benn bloc ngir nag ñëw ci yonent bi ndax boobu yonant bi yéefar yaa ko wër nekk na mbir mu doy waar keroog Abu Bakr Siddiq tourné na jëm ci yonent bi ànd ak umar ibn alxataab radiallahu anhu ak ali ibn abi taalib muy xulafaa yooyu tourné jëm ci yonent bi di ko wër ndax mbooloo mi bëri nañ nee nañu dee na ñu ne ñoom dana leen jaral lu nekk waaye danañ dem ba gis yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam abu bakar yore jaaseem di xeex xeexu jàmbaar te xam nga ni jamono boobu Abu Bakar daanaka dugg na presque ay ay 49 ans jëm 50 ans mbokk yi metit wi nag wër na yonant bi sallallahu alayhi wa wër na ko muy cinquante e bind bi ñu war a jàng mooy ixtidaamul qitaal xawla rasulillah maanaam tacc tacc xare bi nga xamante ni yéefar yi wër nañ jullit ñi di bëgg a ni ñu waree yonent bi keroog mbokk yi yëf yi mujj na metti lool yonent bi sallallahu alayhi wa yéefar yaa ngi ko wër te li nekk ci wetam ci ay jullit juróom-ñeent lañ sallallahu alayhi wa alihi wa ko defee nag yonent bi nag ci la waxee ne halummu ilayya ana rasulullah halummu ilayya ana rasulullah ay yéen jullit ñi ñëw leen ci man ñëw leen man maay yonant bi bi ñu déggee kàddoom nag yéefar yi commencé woon nañ di jibile foog ni rey nañ yonant bi ndax wax ji jóg na iblis tas na ko ñeneen wax nañ ko waaye xamoon nañ baatu yonent bi bu mu nee halummu ilayya ana rasulullah ñëw leen ci man man may yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéefari nag ci lañ xamee ni muhammad deewul ñoom it ñu def mbooloo nag ñëw attaqué ko ndax nee nañu bu ñu yéexee ba jullit ñi agsi duñ ko jot te ñoom ñu ngi ci montagne yi nañu cëppeelu rek fekk ko ci pax bi mu nekk rek saccagé ko benn yoon mbir mi jeex loolu lañu ñu bëggoon loolu nag bi ñu ko déggee ñoom daw nañ mbokk yi di ñëw ci yonent bi ngir bugg koo jekkali juróom-ñeent ñiy wër yonent bi sallallahu alayhi wa di juróom-ñaar jeune ci waa lansaar ak ñaar ci waa muhajirun bi mu ko defee ñëw na ci riwaaya imam muslim mu jëlee ci anas ibnu malik mu ne keroog yonent bi sallallahu alayhi wa wéet na juróom-ñaar ñoo ko wéttali ci waa ansaar ak ñaar ci muhaajiruun ne keroog yonent baa ngi naan man yarudduhum anna walahul janna aw riwaaya wa huwa rafiqi fil janna ana kan moo may défendre am àjjana ana kan moo may défendre nekk sama xarit àjjana bu ñu demee mu nekk sama xarit ñuy ànd allahu akbar allahu akbar ana kan moo may défendre mbokk yi nga foog ñu défendre yonent bi ci jamono jooju seer na lool waaye ci jamono bii it seer na képp kuy défendre yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu la yàlla nangulee yowmal qiyaam di nga bokk ci ñi ko jege ndax danga bokk ci ñi yenu drapeau islam bi yonent bi waxee loolu benn xale bu góor ci waa ansaar jóg ci juróom-ñaar ñi nekkoon ci wetam ci waa ansaar jël jaaseem taxaw ci wetu yonent bi di ko défendre di xeex di rayante di xeex di rayante ba ñu rey ko yonent bi continuer loolu keneen jógaat ci waa ansaar moom it xoolam mbooloo mu toll ni yéefar yi benn nit ne day xeex ak ñoom xam nga ni loolu loolu jaay sa bakkan islaam la inna allaha ashtara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yàlla li mu jënd mooy alal ak bakkan sa alal dalaa war a jaral yàlla sa bakkan dalaa war a jaral yàlla mbokk yi bi ñu rayee kooku it keneen jógaat ñii ñooy gor gis sa moroom mu dee nga jóg pour dee loolu ñi ko mën bariwul keneen jógaat ci waa ansoir xuus ci biir yéefar yi di défendre fett yi di xeex ak yéefar ndax yéefar yi bëgg nañoo agsi ci yonent bi rek rey ko benn yoon loolu moo nekkoon seen bëgg-bëgg kooku it xeex ba ñu daaneel ko ñeenteel bi la même chose jóg keroog mbir mi metti na lool ci dund yonent bi ci waxtu woowu ndax yéefar yi ëpp nañ tiim nañ ko bëgg nañ koo rey te ñi fi nekk bariwuñu ñu ngi koy défendre mbokk yi loolu it bi mu amee keneen jógaat ba waa ansaar seen juróom-ñaari nit jóg ki ci mujj mooy imaara ibnu yazid ibnu sakkan imaara ibnu yazid ibnu sakan moom it tëb dugg ci biir di défendre yonent bi sallallahu alayhi wa ñu koy jam ay fett ak xeej ba fett yi ñoo ko taxawal mënatul taxaw xaw ma xam ngeen li ma wax de xeej yi ko jam xeej yi ñoo koy jam sëppeelul maanaam léegi langaan na dee na mais yi ñoo ko téye allahu akbar mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa des rek yore jaaseem di défendre boppam kuy jàmbaar moo la gën a jàmbaar nekku fanaan xeex leen taxaw de waaye day xeex comme ñépp sallallahu alayhi wa sallam woowu yonent bi sallallahu alayhi nekk ci ñëw na ci saxiixayn nettali nañ ci xadiisu abi usmaan mu ne keroog desul ak yonent bi sallallahu alayhi wa lu dul talxatu bnu ubaydillah ak saad bnu abi waqaas talxatu bnu ubaydillah ak saad ibnu abi waqaas keroog mooy dund bi gën a métti ci dund yonante bi ndax dund goo xam ni dee nga jàkkaar lool mooy dund bi gën a métti amul hasan métti woon na mais bii moo gën a metti ndax bakkanam lay laaj mbokk yi ñaari sahaaba yooyu ñoom it nag comme yéefar yi am nañu occasion ne bu ñu sàgganee ba mu Muhammad rëccuñu fii mooy dootuñu ko rey kon nañu fexe rey ko ñële ñaari jóg nekkaat ak ñoom mbokk yi keroog la yonent bi sallallahu alayhi wa am jaaxle waaye ànd ak dal ndax ñi nekk ci wetam yéefar yaa ngi ko bëgg a rey waaye ñaar ñi mu dese ak doomam faatima ñu ngi taxaw ci wetam saad ibnu abi waqaas keroog moom it taxaw na ak it talxa ñii nag taxaw nañ ngir défendre yonent bi sallallahu alayhi wa alihi keroog saad ibnu abi waqaas fettkat la woon waaye mi ngi jël fettam ak xeetam di sànni côté bu nekk ma ngi koy sànni léegi nag am na ku ñuy wax utbatu ibnu abi waqaas ndeysaan mu for ab xeer ci yéefar yi la xeer boobu la dóor mu dal ci tuñu yonante bi fii allahu akbar ndaw ku bon xeer boobu moo damm bëñu yonante bi bëñ bi ne taf wadd ci suuf mbokk yi bërëb boobu am na fa xissa bu doy waar boo xam ni day tuur rangooñ bu naqaree nettali yonent bi sallallahu alayhi wa foofu mu tolloon avant xare bi di am dafa am benn yéefër bu doy boo xam ni dafa doon gas pax paxum fiir ma ngay gas naan sama pax mi naa ko fi gas aman na bu xare bi jotee Muhammad fakkastalu daanu ci su ci daanoo ñu rey ko benn yoon kooku loolu la doon wax bi xare bi mettee ba nu koñe yonent bi ñii ma lay wax nii daanu nañ mooy juróom-ñaari waa ansaar yi mu des talhatu bnu ubaydillah ak Saad ibn Abi Waqaas ñu ngi xeex waaye xam nga ni ñaar mënuñoo xeex ak mbooloo yonent baa ngi soloon yére guerre ak benn mbaxana boo xam ni weñ la pour fett ak xeej bañ koo mën a dugg bi ñooñu daanoo yonent bi sallallahu alayhi wa di xeex dogalu yàlla ñëw mu far fakkastalu ci biir pax bi na ko yéefar bee bëggee woon noonu la amee te pax bi dafa am xeer bu mag bu ci nekk xeer boo xam ni comme pyramide la mbokk yi allahu akbar bi yonent bi daanoo ci pax mi ndigg li mu jóg daanu jógaat daanu daanaka mën nga ne xaw naa damm sallallahu alayhi wa yonent bi jóg daanu jógaat daanu fi muy jéemee teg loxoom di jógaat yéefar bu bon ci yéefar yi ñu ko ibnu Qami'a daw rey na ñu bari ci jullit ñi jël jaaseem fëgg ko ci bopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi daanu teg loxoom siggi mu fëggaat ko ci kanamu lex bi mbaxana bi nag ci la crochet benn cat bi ñuy tëj fii dugg ci biir tuñu yonent bi puus bëñ bi beneen bi dugg xaw ma li may nettali xam ngeen ko la de dafa naqari nettali mbokk yi suñu yonante nii lañ ko def mbaxana bi coincé deret bi ne satatatatat yonant bi daanu jébi dalaat ci xeer jébi sànni kereeb deret jaa ngi satatati yonant bi jóg di jéem mënatul ibnu qami'a dóoraat beneen ne ko xuz wa ana ibnu qami'a ne ko jëlal loolu man maay ibnu qami'a génnaat yonent bi ne ko xamma ak allah mbokk yi jullit ñi seen loolu deret ji satatati rek jullit ñi yuuxoo kenn mënatu koo may jooy comme ay xale abou bakar ak daw umar ak daw dugg ci biir yéeféer yi xëccoo xeexoo abu Aboubacar moo jiitu ci yonante bi mu fekk yonante baa ngi tëdd mu naan ko fadaytuka bi abi ya rasulallah fadaytuka bi abi ya rasulallah jotee naa la sama ndey ak sama baay jullit ñi ku xool yonante bi jooy bët yaa ngi taa mbaxana maa ngi fees deret deret yaa ngi satatati yonante bi mënatul dara abu Aboubacar daw ñëw te mbaxana mi góos xëcc mënulul mbaxana mi dara ndax weñ la xëcc xëcc mënalu ko dara mu taxawaat xëcc mënalu ko dara mbokk yi saxaaba yi nag foofu nag dëgg dëgg dëgg saalit nañ ndax ku ñu def seen yonant nii dana leen metti keroog mbokk yi Abu Bakar mi ngi jooy jullit ñaa ngi jooy Abu Ubayda daw bi mu ñëwee ne Abu Bakar maa ngi giñ ci yàlla bàyyi maag yonent bi ma dindi ko anshadtuka allah maa ngi lay giñe ci yàlla bàyyi ma ma dindi yonent bi loolu abu puus mbokk yi abu ubayda daw ñëw dugal baaraam yi munta dugal mu dugal munta dugal foofu nag yonent bi xëm na sallallahu alayhi wa sallam foofu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xëm na mbokk yi abu ubayda xool mënul dara mu màtt benn côté bi jël loxo ndeyjoor bi téye pour contrer bëñam ak beneen loxo bi ndax mu am doole foofu mbokk yi lay xëcc rek moom it bëñam ñu tey wadd allahu laa ilaha illallah moom it bëñam wadd sahabatul kiram ñu ngi nettali nee nañ ñi xamoon abu ubayda démb gis ko tey bi bëñ biy wadd leer bi ko yàlla jox mosuñoo xam taar bu mel noonu ci abu ubayda loolu loolu yàllaa ko ko defal teraanga ndax bëgg a dimbale bi ba perte ci bëñam mbokk yi noonu lañu mën mëne ba buddi mbaxana mi deret bi satatati ci la yonent bi nag daanoo xëm ndeysaan allahu akbar fadaynaaka bi abaina wa ummahatina ya rasulallah jotee nañ la suñuy ndey ak suñuy baay ci la yonent bi waxe waxam bu siiw boobu ne kayfa yaflahu qawmun shajju wajha nabiyahum wa kasaru rubaaciyata wa huwa yadcuuhum ila allah aw nit ñu def nii seen yonent toj kanamam damm bëñam te deful dara lu dul woo leen rek ci yàlla nee na yonent bi nee na rek aw xeet wu def loolu nan lañuy muccee mbokk yi yonent bi xol bi metti na ak nite ñëw na ndax li ko dal ku mu dal nite ñëw mbokk yi bi mu waxee loolu waxaat ko Abu Bakar mi ngi ko tiim du jooy wallahi ko tiim du jooy borom bi ne ko laysa laka min al amri aw yatuuba alayhim aw yuadibuhum fa innahum zalimun ne ko mbir mi moom amoo ci dara dara dara dogalu yàlla la coobareem la lu ko neex la koy def riwaaya tabaraani dafa wax ni ishtadda gadabu llahi ala qawmin damu wajha rasuli nee na merum yàlla dana tar ci aw xeet woo xam ni génn nañu deretu seen yonent yonent bi sallallahu alayhi taxaw lu yàgg nag xëm ximmaliku siggi li mu siggee saxaaba yi wër ko ndeysaan xol bi yaram bi daw mu siggiwaat nag tàllal loxoom sallallahu alayhi wa ne allahuma agfir li qawmi fa innahum la yaalamuun allahu akbar allahuma agfir li qawmi fa innahum la yaalamuun yàlla yàlla na nga jéggal sama xeet xamuñu suñu xamoon duñu ma dóor ay jaasi ndax indiwuma lu war ñu dóor ma jaasi suñu xamoon duñu ma duur ay xeer ndax indiluma leen lu jar loolu kado laa leen indil kado bu leen di jëlee ci safara yóbbu leen ajjana bu leen di jëlee ci réer yóbbu leen ci gindiku bu leen di jëlee ci lëndëm yóbbu leen ci leer yàlla ñii dañoo xamul suñu xamoon duñu ma def ni mbokk yi léeg-léeg nga indil nit teraanga yàkkamteem tax mu sànni teraanga jooju ak ñàkk xam waaye ku toll ni yonent nga tiim ko mën a jël jaas yi di ko dóor ci boppam kon ibnu xamia la mu buggoon bu sotti woon mooy keroog yonent bi dee ndax dóor na yonent bi mu daanu jëwam dal ci pyramide boobu ma lay wax yaram bi ne tas toj mu dóoraat ci beneen oto bi ne ko xud haada wa ana ibnu xamia jëlal lii man may ibnu xamia waaye mbokk yi note leen ibnu xami ami def loolu ak li ko yonent bi ñaanaloon fan la mujj fi mu mujj ñibbi na fi mu ñibbee màkka yéeg ci benn montagne di sàmm ba dugg ci diggante ñaari pax yu kawe fa la ko benn njaaxal la fekk di ko mbëkk di ko mbëkk ba mu daggatoo mooy xam ma ak allahu bi ko yonent bi ñaanaloon sallallahu alayhi wa wallahi su xamoon du jëf jëf ju ñaaw ji mbokk yi saxaaba yu njëkkante daw jooyoo ne yonent bi jaay nañ la sunuy yaay ñépp xëccoog yéefari nag saad ibnu abi waqaas ak talxatu ibnu ubaydillah ñoom ñaar nag ñoo ne ci pax mi tiim yonent bi di xeex nag mbokk yi am na benn kilifa bu mag nga xam ni mag la dugg na ay 69 ans daanaka 70 ans muy Abu Talha keroog Abu Talha def na njàmbaar gu yéem jullit ñépp Abu Talha fettkat bu mag la woon waaye dafa taxaw ci wetu yonante bi fett bu ñëw mën a nii dënnam mu dal ci kawam mu dellu allahu akbar loolu lépp mi ngi koy def di chercher dee dee di ko daw moom dee lay chercher dee di ko daw fett bu ñëw bu ñëwee ci suuf mu tëdd ngir fecc bi dal ci kawam bu ñëwee tiim ko mu tiim yonante bi bañ a dal ci kawam ngir fecc bi dal ci kawam noonu la abu talha nekke woon mbokk yi allahu akbar ñii ñii ku xëccoog ñoom àjjana ndeysaan xaw ma foo jëm xaw ma foo moom kay ñoom dañuy am ba desal ñun ñu jéem a xool ndax ci seen taqandeer danañ ca am dara mbokk yi saad ibnu abi waqaas yore fettam nag yonent bi sit gi saad ku mënoon fett la nijaay la ci yonent bi sallallahu alayhi wa yonent bi ne ko irmi fidaaka abi wa ummi kooku rek la yonent bi musa wax baat bi sànnil jotee naa la sama ndey ak sama baay kenn lañ ko mës a wax ci saxaaba yi muy Saad ibn Abi Waqaas saxaaba yi bi ñu déggee dañoo kontaan Saad moom it ndeysaan yonent bee koy téel kinaana bi def xeet yi di ko roccil di ko jox benn par benn gis nga loolu keemaan la ci saxaaba yi ak rëy gu mu rëy ci saxaaba yi keemaan la leen def yonente bay rocci naan ko sànnil jotee naa la sama ndey ak sama baay muy sànni xoola day mujj sànni di wëlbatiku di tëpp yonente bi di rocc di ko jox di rocci di ko jox muy fett moom it di fett di jam gauche ndeysaan di jam droite benn mbooloo ci waa ansaar ñoom it kadalika noonu taxaw ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne man lil qawm ana kan mooy taxaw xeex ak yéefar bi mu waxee loolu talha ne ko ana ya rasulallah talha ibnu ubaydillah tëb ne ko man yonent bi mbooloo lëmm yonent bi ne ana mooy xeex ak ñoom talha ne ko man man maay xeex ak ñoom daa di tëb moom it dugg ci biir mbooloo mi di xeex ak ñoom di rey benn par benn di rey benn par benn xeex na moom it ba loolu lépp dal ko ci ndeysaan ñu sànni ko benn fett taf fett bi dal ci baaraam bi baaraam bi ne tay dagg mu ne xis baat bi moom mooy cam yonent bi ne ko soo waxoon bismillah moo gën waaw boobu fekk na deretam tàng na ndeysaan jikkoy démb agsi na ci moom bi mu waxee loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko law qulta bismillah la rafaatka al malaikatu wannaasu yanduruun bi baaraam bi dagg boo ne woon bismillah malaaka yi dañ lay yëkkati escorté la ñépp di ci teg seen bët allahu akbar moo taxaw défendre yonent bi ci kanamu yéefar yi di xeex ak ñoom ba ñu jam ko 39 fett lañ ko jam allahu akbar talhatu lañu ko jam am na riwaaye bu wax sax ni 53 fett lañu ko jam ak baaraam bi daanaka métit bu ne dal na ko ndeysaan loxo bi mënatu la tee fet mënatu ca yonent bi ca la taxaw ci riwaayé habba an yandura ila sari sahidin yamsi ala wajhi al ard fal yandur ila talhat bnu ubaydillah ne ku bëgg a xool martyr buy dox ci kaw suuf xoolal talha xoola ku bëgg xool man ahabba an yandura ila shahidin yamshi ala wajhi al ard fal yandur ila talhat bnu ubaydillah nee na képp ku bëgg xool shahid buy dox ci kaw suuf xoola talhat ibnu ubaydullah saxaaba yépp di xool talha talha mi ngi xeex dégg na baat bi xam na ni dana dee yonent bi xam na ni dana dee saxaaba yi xam nañ ko waaye loolu découragé wu ko benn yoon ndax xam na ni àjjana mooy njëkk li ñuy labat ku ko am mucc nga moo tax abu bakar siddiq suñu daan nettali keemaani uhud abu bakar day wax rek ni waxam ju jeex da nee na uhud daal xeexu kenn la woon moom moom lépp muy talxatu bnu ubaydillah nee na kooku daal uhud yépp bu ñuy wax moom la ñuy war a wax moo tax abu bakar wayen ko ne ko yaa talxatu bnu ubaydillahi qad wajabat laka aljinaanu wa buwita almahaaina ne ko am nga ajjana yow saxal nañ la ca ajjana nga am lépp ndax rek bakkanam bi mu jox islaam jaay boppam diine mbokk yi waxtu wu metti woowu ci jullit ñi ak wara a am na ñaar ñu làmbaayoo yére yu weex tal taqul tilimul ñu ngi yore jaaseeg xeej di xeex na kii ci ndeyjoor yonent bi kii ci càmmoñ yonent bi sallallahu alayhi ah loolu de war nañoo laaj ñaar ñooñu ñan lañ ndax ci saxaaba yi lañ déedéet mbokk yi jibril ak mikail ñoom ñoo wàcc ak seen yére yu geer sol yére yu weex tàll yore jaasi taxaw nag di xeex di défendre yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñëw na ci riwaaya buxaari yi jibril ak mikail ñoo taxawoon ci wetu yonent bi sallallahu sallam jullit ñi nag commencé nañ nag war a dajaloo nag ndax fi mu ne metti na metti goo xam ni il faut rek ñoom ñépp ñu ñëw fekk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam commencé nag di xotti mbooloo yi nag foofu nag la kemaan yu bari di feeñee ndax Saad ak Talha ñoom ñu ngi défendre yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abu Bakar jiitu na Umar topp na ko Ali topp na ko sahaaba yi topp nañu ñooñu ngir ñu ñëw ci yonant bi sallallahu alayhi wa alihi wa mbokk yi bi abi bakr ñëwee ak umar ibnul xataab ak saxaaba yi ndeysaan lañuy fekk talxa di daanu bi talxa di daanu ak xeec yiñ ko jam yonant bi ne leen duunakum axaakum faqad awjab ne leen jël leen seen mbokk mi li ko waral li mu li mu bëggoon li mu waroon def lépp def na ko cest jaay na yàlla boppam ci ixlaas ak sellal ba lépp dal ko fii comme moom matle na faqat aw jaba matle na allahu akbar ku yonent bi seede ne matle nga loolu li muy tekki moom mooy matle nga mbokk yi abu ubayda mu ngi mel ni picc muy naaw nekk ci biir xeex bi di def loo xam ni nit ñi yéem na leen waaye gis nga jullit ñi daw nañ ngir ñëw ci yonent bi aar ko abu dujaana mus'ab ibn umayr ali ibn abi talib sahl ibn hanif malik ibn sinaan malik ibn sinaan boobu mooy pàppay abu saidin al xudri ak ummu imaara nusaybat ibn ummu imaara benn jigéen keemaan gi mu def ci uhud dafa jaaxal ba léegi moom la jox nasiba bintu kaab ummu imaara comme góor fa làmbaay yu laxasu keroog ummu imaara moomu moo daw dàq ibnu xamiya bi ibnu xamiya dóore yonante bi ne ko jëlal loolu ummu imaara rëppatal topp ko mu rëppatalee topp ko sànn sadd ko jaaseem waaye comme dafa defendre woon dóor na ko dóor yoo xam ne bu fekkoon loolu amul kon mën nañ ñu dundam mën na caa jeex mooy nasibat ibnu kaab ak qataadatu ibnu nu'maan ak umar ibnu xataab xaatib ibnu abi baltaa ak abu talha ñii puus nañu mbooloo mi xeex nag ba ñëw ci wetu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk yi foofu nag la njàmbaar di feeñaate benn par benn ndax commencé nañ ñële yéegoon nañ ci montagne yi yàkkamti nañu wàcc ngir bëgg a rey yonent bi amatuñu moyen bu ñu yéegee jullit ñi siwaat nañ ah foofu nag mbir mi dafay daal di keroog talha mi ngi tëb di tëb abu talha mi ngi wër yonent bi bañ naan ko lan la mu naan dun dee moo ma gënal dund dee moo ma gënal dund xeej bu ñëw mu jox ko boppam abu dujaana mi ngi taxaw ci wetu yonent bi sallallahu alayhi wa yore fettam di sànni góos droite xaatib ibn abi baltaa kadalika naka noonu saxaaba yi ñoom ñépp nag kenn ku ci nekk nag ma nga taxaw ci mënam am na ku ñuy wax saxal ibn xanif moom ci sànnikat yi nga xamante ni dafa jaayante woon ak yonent bi ci wàllu dee moom dafa ñëw ni yonent bi jaayante nag yow pour ma dee am shahaada moom it def na wareefam ba ñu rey ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ci digg métit waaye jullit ñi delsiwaat nañ abdurahmaan ibn awf fa la nekk moom it di xeex ba ñu gaañ ko ci gémmiñ noonu moom it jam nañ ko ñaar fukki jam-jam malik ibn sinaan di pàppay saad ibn abi waqaas kadalika naka noonu mbokk yi foofu nag la jullit ñi nar tàmbalewaat jëlaat nag seen deuxième place ngir première bi gañe woon nañ banaagu yàlla lu muy bañ mooy naagu ndax jullit waroo naagu soo mënee waroo naagu suñu la mënee waroo naagu kon départu xeex bi jekku nañ foog ni mbir mi jeex na ndeke yoo mbir mi day wëlbatikoo bi mbir mi wëlbatikoo day mujj mettiwaat gis nga pàppay abu saidin alxudri muy malik ibnu sinaan moom dafa daw gis yonent bi sallallahu alayhi wa fii mi ngi naaj ci def newi new bi metti ñu foog ñi dafa am lu ci dal moom mu ñëw muucu loolu ba mu deñ yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko yàbbi ko mu ne xam nga ne yonent bi ko yàbbi mukk ci kaw suuf ma ko yàbbi mukk yonent bi sallallahu sallam taxaw nag jullit ñi wër ko keroog mbokk yi ibnu qamia ca la séenee Mus'ab ibnu Umayr Mus'ab dafa nuroo woon ak yonent bi taxawaay ak bind léegi nag ibnu Qamiya dégg na ni yonent bi deewul mu seen Mus'ab nag foofu la foogee ne yonent baa ngi dawaat jëm ci moom noonu la ñëwee nag ndeysaan dog loxo ndey jooru Mus'ab bi mu dogee loxo ndey jooram Mus'ab téewaat drapeau islaam ak loxo càmmoñ bi mu dogaat ko bi mu dogaatee loxo càmmoñ bi nag Musab képp ko nag nii sëgg mu xàcc jaas yi nar a dóor Musab nag fa la ko Ummu Imaara fekk moom it waaye boobu fekk na jekku na Musab ba Musab daanu rekk moom moo ko defee kon Ummu Imaara moom it ñëw moom it di xeex ci ginnaaw Musab ak Ibnu Qami'a ba Ibnu Qami'a mujj daw mbokk yi foofu la Mus'ab ibnu Umayr daanoo moom it ñu bari daanu nañ waaye ñi gën a jàmbaar ci xeex bi te daanu te bu ñu tuddee Uhud kenn du leen fàtte mooy asadullah Hamzat ibnu Abdul Muttalib ak kii nga xamante ni moom mooy premier awalu safirin fi islaam mooy premier ambassadeuru islaam di Mus'ab ibnu Umayr kan mooy Mus'ab Mus'ab waa Makka la papaam yaayam danoo amoon alal lool Mus'ab nekkoon ndaw lu taaru lool luy am ci dëkk bi ci yére moo koy njëkk sol parfum buy ñëw mookum lañ koy njëkk a jëndal nit ñi ñu ngi doon xamee ci Mus'ab parfon yu bees yi génn parfum classique yi ci moom lañ ko doon xamee su doon suñu jamono jii mën nga ne dañ ko jàppee comme mannequin nga xam ne lu mu sol dañ koy soxla mbokk yi ab keroog bi ko duafaul muslimina daawa mu ñëw ci yonent bi dugg ci islaam ñëw exposé ko seen kër papaam ak yaayam dañoo bañ baal muhammad mu ne du bàyyi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu tëj ko ci kër gi tëj nañ ko plus de vingt neuf jours duñ ko jox lekk duñ ko jox naan ba lenn ci saxaaba yi ñoom bilaal ak ammar ñoom ñooy daw di ut mburu mu wow léeg-léeg ñu takkante seen yére takk ci mburu mi yoor ko ko pour mu mën cee lekk dem na ba yaay ji xam ni musab lii mu jàpp ci lay dee du bàyyi muhammad yaay ji na pàppam kii bu yeboo nga bàyyi ko kii mënoo ko mérital ba mu bàyyi muhammad nañ ko génne kër gi pàppam génne ko kër gi ñu futti yéreem yépp amatul lu mu sol mu génn ci biti nga xam ne yaramu neen la def for morso laxas ci kawam nga xam ni ki daan sol yére yi gën a bees tey lan la sol li gën a ñaaw lu ñu sànni ci sën ba lan moo ko ko jaral islaam amul yére mu gis fa ab deru gëléem bu ñu sebejoon sànni mu jël der boobu xar ko ci digg bi sol ko ci bopp bi takk comme ni ñuy waxee faaru mbaam loolu la mus ab def amul dàll yu sol di dox ci montagne yi jëm fan ila daaril arqam jëm ci yonante bi di yéeg ci montagne yi di yéeg di wàcc tànk yi naaj keroog bi ko yonent bi séenee muy ñëw yonent bi dafa jooy mu ñëw gaa yi ne xool bi ne xool leen kiy démb li gën a taaru moo ko daan sol tey gis ngeen ko islaam mi ko jaral lu mel nii noonu la mus ab mel ba bi yonent bi waree dem Madina bay al aqaba saaniya nga xam ni waa Madina ñëw nañ ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soxla nañu ku ñu forme balaa ngay ñëw yonent bi ne leen maa ngi leen di booleeg mus'ab ibnu umayr ci la mus'ab jóge màkka gàddaay dem madina avant yonant bi ñëw madina kër gu nekk mus'ab dugg na fa jàngale fa alquran daawa fa mus'ab moo daawa waa ansaar ñetti xaaj bi yépp moo leen dugal ci diine avant yonant bi di ñëw sallallahu alayhi wa loolu moo tax ñu naan ko premier ambassadeur islam waaye tey xool leen ci uhud bii nga xamante ni daanu na daanu na ci bu ñu agsee bi xeex bi jeexee la kemaan gën a am ndax ñëw nañ yére bi mu sol matul ci óom yi la yem yonent bi sallallahu wasallam ne sàngee leen kook ay yéreem ñu sàng yére bopp bi ba ci óom yi tànk yi feeñ gaa yi jëlaat muur tànk yi jëm ci bopp bi mu yem ci dënn bi bopp bi feeñ yonent bi ne muur leen bopp bi ba ci óom yi li ci des mottalee leen ko ñax daldi di jooy sallallahu alayhi wa sallam ci koo xam ni amoon na lépp nga xam ne bu doon càngaay dañ koy jëndee lu cher mu desoon fa mu des dana ko jëndee lu cher lool waaye nii lañ ko mujj a def ndeysaan suul ko mottalee ko ay ñax kooku mooy Mus'ab ibnu Umayr lu ngi ñaan yàlla incha yàlla defal ñu tawfiq defal ñu ndimbal defal ñu yëg-yëg ci diine tojal ñu suñu xol ba ñu nekk ay dëgg-dëgg jullit waaye mu soppaloo ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci góor ak jigéen mbokk yi ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku la topp toppoo lu wóor ku toppul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku la topp deful lu wóor ndax yowmal qiyaam kenn la yàllay laaj ci ñun muy muhammad rasulullah ginnaaw muhammad keneen duñu ko laaj kon jàmm ak salaam yiw ak tawfiq ak yaakaar yàlla mu ngi ci ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak yonent bi nag mooy jéem a xool ndaw ñi ko waroon ndaw ñooñu seen àdduna dañ ko jaayoon seen boroom dañ ko jaayoon seen boroom lan moo tax ndax xamoon nañ ni bis dana ñëw te bis boobu yow mun yawmun tataqallabu fihi alqulubu wal sor bis boo xam ne xol yi ak bët ay buqeeku ndax tiit keroog ku yonent bi gërëm di nga gërëmlu kon nañ leen góor góor lu ñu ñëpp ci diine yal yàlla aar ñu aar leen incha allah ba dar si bii di ñëw wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.